sëñ bi tout d'abord lan mooy faiblesse sexuelle. faible faiblesse sexuelle mooy góor goo xam ne. Mhm. soo soo amee érection. Mhm. érection bi du dëgër. boo amee érection érection bi du dëgër. boo amee maanaam li ñuy wax sàkkara ku góor ki. waaw bu taxawee. Mhm. dafa war a wax dafa war a def jàdd jàddaatal. d'accord. loolu la jigéen ñi soxla ci góor. loolu ñu baal ma ci ñu baal ma ci kàddu gi maanaam loolu la wax góor. boo déggee ne góor la mooy maanaam sàkkaraam bu fekkee dafa jóg day taxaw na sat loolu mooy góor léegi nag su fekkee ne bu taxawee day sëgg waaw ndax euh, xëy na euh, tolluwaay bi mhm. ci guddaay yaatuwaay bi wala diisaay bi mhm. mën na waral bu taxawee du na sàtt mhm. du teye mu dëgër waaye mën na tamit am manque kattan boo xam ne pour dëgëraay bi waaw léegi nag bu taxawee day nooy buy sëy ak soxnaam day nooy loolu nag day déggute jigéen Uh-huh. loolu day tax jigéen di énervé day tax booy am rapport ak jigéen da nga koy sonal. Mm-hmm. du yëg li war a yëg ndax yàlla na mu bindee góor ak bind ko jigéen. Mm-hmm. dafa naturel. Mm-hmm. ba nga xam ne ñoom ñaar bu ñuy def rapport. ñaari ñaari ñaari sexe yi. Euh, sexe bu ku jigéen ki ak euh, sàkkara ku góor ki. ñoom ñaar kenn ku ci nekk ni nga ni nga war a mel da nga koo war a da ko war a mel. rapport soog a am. loolu mooy ñuy wax prélèvement yi ñuy jël ci booy def. rapport charia daf koy jàngale. balaa ngaa sëy ak sa soxna. na nga fexe mu wasal wasal bu njëkk mhm. wasal gu njëkk mooy mu fexe mu tooy mhm. tooy bu njëkk ba nga xam ne boo koy pénétrer du yëg jafe-jafe ci ñu bàdd ñu baal ma mhm. yaa ngi dégg du yëg jafe-jafe te it dañuy soxla ku góor ki maanaam awraam dëgër dëgër boo xam ne buy sëy ak soxnaam maanaam lim soxla ku jigéen ki waaw dana ko mën a am te fekk na coono du ko yëg coono du ko yëg loolu mooy loolu mooy faiblesse loolu mooy faiblesse bokkul ak bokkul ak éjaculation précoce mooy teel a pare ah mais nag loolu nag moo loolu loolu nag gars yi nag xamuñu ko parce que des fois éjaculation précoce ñu bari dañuy. wax faiblesse sexuelle foog ne faiblesse sexuelle. déedéet kon éjaculation précoce du ah. nit ki mën na am mën na am sàkkara bu dëgër këng. ba pare bu ànd ak soxnaam bu defee ñaari aller retour rek pare na ci. waaw parce que day day fekk moom mu mu sensible lool nga xam ne dafa am ay maladies yoo xam ne ñoo yoral loolu. Ah. léegi nag soo fekkee da ngaa feebar nag dangay ngay teel a éjaculer. waaw léegi nag am na ñoo xam ne. du ñu éjaculer du ñu am problème érection hmm. mais dañuy am problème mu euh, appétit sexuel mooy di seen di san yëg seen bopp maanaam di gaaw a yëg seen bopp waaw am na ñoo xam ne danañ gis jigéen hmm. te duñu yëg dara góor bu gisee jigéen rek hmm. war na yëg ne jigéen la gis ah, ah, waaw waaw jigéen tamit bu gisee góor war na yëg ni góor war na yëg ne góor la gis léegi nag problème boobu muy problème appétit sexuel ak problème érection day dal góor day dal jigéen jigéen jigéen day yëg boppam. waaw am na jigéen ñoo xam ne mën ngaa sëy ak ñoom ba pare duñu yëg dara. waaw loolu de feebar la moom. waaw dañuy feebar man dama koy faj. ki nga xam ne bu sëyee du yëg bànneex dama koy faj. Mm. am na koo xam ne bu sëyee day gaaw a yëg bànneex dama koy faj. am na jigéen ñoo xam ne moom booy ànd ak ñoom booy départ pare nañ. li ci des yëpp dootuñ bëgg sax nga jege leen dañuy bëgg yow nga dem dem nga jëm ne. am na si jigéen ñoo xam ne nag dañuy yéex a yéex seen bopp lool. ba yow ko góor ki da ngay dem ba kawate ba jeexal tàkk doo leen mën a jot. loolu tamit feebar la loolu ma dama koy faj mais ga sëy li ci gën a neex. Ah. mooy yaag sa partenaire. bu ngeen ngeen yemandoor vitesse.